salaamaaleykum ñu ngi nuyu bépp auditeur u Rewmi FM ñi nga xamante ni saa su nekk ñooy ànd ak rajo bi di Rewmi FM Dakar quatre vingt point cinq samedi bu jot dix heures jàpp onze heures ngeen ci ànd ak Ndeye Comba Moreau ji seen émission sociale toute la ville en parle dalal Timothy Coly nekk coordonnateur bu amicale euh, des travailleurs de l'électricité ñu fas yéene waxtaane jafe yi nga xamante ni euh, moo am euh, ci Sénélec boobule ak dox ñaxtu yi nga xamante ni fan yi Ah, ñoom ñu ngi koy amal lan moo ko waxal tey jii tamit nekk euh, fet du premier mais euh, du fet du travail nekk bés boo xamante ne euh, liggéeykat yi dañ ci laaj seen i àq ak seen yelleef lu ne mel tamit ñu daal di koy fas yéene waxtaanee ak Timothy Koli ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. ñu ngi lay sant bu baax a baax. Mhm. di kontaan bu baax a baax tamit aussi ci invitation bi. voilà mu ngi noonu ñu ngi lay remercier ci sa disponibilité euh, tey jii ngeen def ab amicale tuddee ko amicale de travailleurs de la Sénélec lan moo ko waral exactement seen kuréel gi. waaw donc amicale boobu noonu li tax a jóg euh, nekkul dara dul jéem mm-hmm. ah, parce que ay xale daf naa bu ñuy liggéey ci structure yàgg fa lool euh, yoon war na ne bu occasion amul taxawee dañ leen war a jël. Mm-hmm. parce que bu dul dara ay borom yu njaboot nañ. ñi yor jabar ñi yor vraiment nekk ay soutien famille. Mm-hmm. donc vraiment lu ñu dundee au début dafa métti puisque euh, boo seetee ba seet amical bi li ko gën a tax a jóg. Mhm. mooy objectif mooy demander la régularisation de tous les prestataires mhm. au niveau national. amical bi looloo ko tax a jóg. amical bi looloo ko tax a jóg en plus xeexaale injustice bi nga xamante ni day dem dafa am biir Sénélec xeexaale avec tous les cadres de la Sénélec ñi nga xam ne dañu jël retraite mhm. ñëwaat ci boîte bi di créer ay les jeunes. amical bi yàgg na wala yàggul. amical bi depuis le vingt huit euh, avril deux mille dix sept dañ ko créé. Mhm. Euh, régularisation de tous les prestataires. c'est-à-dire embauche ñaata prestataires. 499 prestataires. moo tax a jóg bi. xanaa xanaa yéen amoo leen ay syndicalistes yu leen xeexal. ci biir ci biir Sénélec bi. ba tax ngeen euh, teg euh, amical bi. non ñun basé wuñ ci benn syndicat niveau de la mhm. waaw ñun actuellement nii sax maa ngi ci profité occasion bi di ma Mhm. Mamadou Guiro qui est le secrétaire général du CNTS. Mhm. moom vraiment mu ngi ñu accompagner ci liggéey bi euh, mu ngi ñuy daal vraiment di conseiller. te mhm. boo leen seetee ba seet euh, ñëwoon ngeen fa keroog teg de euh, def naa. saalu CNTS ba. fu mu toll nii see saa bu ñu jàppale fu toll nii ci liggéey bi. kon yéen maanaam amul benn syndicat wala syndicaliste bu ànd ak yéen ci xeex bi ci biir Senelec. non non non amul li ko waral moo ne amoo leen yéen demoo leen sollicité syndicat yi nekk. ñu soutenir non si si. wala waaw si leen njëkk lañ leen sollicité. Mhm. mais am na ñoo xamante ne nii bon ku ci mel ni Habib Aïdara. Mhm. moom moo nekk euh, secrétaire général Sutelec. Mhm. Sutelec euh, benn euh, syndicat la boo xamante ne nii moom am na ay travailleurs yoo xamante <coughs> yoo xamante ni ci moom lañ nekk. biñ ñëwee waxtaan ak moom ci ci ci li nga xamante ni vraiment moom lañ bëgg. c'était au début. Mhm. depuis le 21 mooy euh, bi ñuy jour bu ñu créé amicale bi. Mhm. structuré ko ba commencé dox di dajale ci laa ko gis expliqué ko bi. Mhm. mais bon ni mu bëgg a doxee ak ñun xëj na moo ñu arrangé wul. moo tax nan la bëgg a doxee ak non xëj na ñoom dañuy bëgg chaque année ñu bëgg a jël trois. deux bàyyi ñu des. bàyyi ñu des xam loolu dafa xew doy war. te aussi ñun yàlla dafa def na ñun prestataires yëpp benn bopp nañ. waaw ku ci am naqar ñëppay taxaw kon def nañ ne ku ci am bànneex tamit. pour waroo ànd ak doon ci bànneex bi. mais maanaam daal amoo leen euh, soutien wu syndicat yi nekk. biir Sénégal non amuñu loolu laa ci mën a dégg. amuñu benn soutien syndicat yi. léegi yéen exactement euh, fan yii di ngeen yéen a ngi amal conférence de presse keroog amal ngeen marche. Mhm. Euh, bu rëy rey lan ngeen bëgg lan ngeen di reprocher DG Pape Demba bi tey bi jiite Senelec. waaw c'est-à-dire xam nga ay ndaw soo leen dajalee parce que xam nga conférence de presse wax naa ko lu bëri yoon. Mhm. nekkul lu ma inventé nekkul loo xamante ni dama jég sari wax mais kilifa gi ci boobu muy Pape Mademba bi tey moo ko wax waaw parce que euh, en deux mille vingt dañu dañ ko rencontré lu bëri yoon. waa mu def ay promesse waaw mu def ay promesse yoo ci ni vraiment te en tant que coordonnateur ma toog ak moom mu defal may promesse man mu yor ay ay nit yoo xamante ni dañ ma dénk seen kaddu. Mhm. te nit ñooñu noonu ay jeunes nañ bëgg a pour seen avenir. Mhm. mais Pape su ma nee balaa deux mille vingt dinaa ma wax ko ñi nga xamante vraiment ñooy amical bi mais par la suite le 29 décembre 2020 fin 2020 presque woo na ma ne ma ci 499 prestataires 3 personnes laa la laa la mën a jox. 3 mhm. personnes 3 personnes sur 499. Mhm. te pourtant wax naa ko nee ko te moom ci boobam waxoon na ma ne conseil d' administration Sénélec. Mhm. permettre na ko en 2020 mu embaucher 210 donc mais 210 yooyu noonu. waaw même deux cent dix yooyu euh, yi mu war a recruter fan la ko jaarale. recruter na ko wala recruter wu. mais recruter na ko bien sûr. mais fan la ñooñu jógee. si yéen bokkul si. ñun bokkul si ñun. fan lañ jógee. mais lu ma la wax rek mooy seen recrutement ay mag rakk militant rakk militant doo comprendre ay gars yoo xamante ni bu suñu liggéey Senelec. Mm-hmm. te li problème moo nekk de yow mi nga xamante yaa nekk ci boîte bi ci liggéey pendant quinze ans vingt ans dix ans cinq ans yow boo jógee di casse pour ñu ñu ne la yow tu n'as aucun lien juridique qui te lie avec la Sénélec Sénélec moom depuis l'antiquité loolu rek mooy réponse am mm-hmm. tu n'as aucun lien juridique qui te lie avec la Sénélec waaye léegi moom rakkam bi nekk këram wala jarbaatam bi dum tëdd këram di nelaw ban lien juridique la am ak Sénélec c'est que naxee mbaay moo bëri mais mais naka la demee euh, problème mu 499 prestataires yi ñoom ñëpp ñu ngi biir Sénélec di liggéey. ñoom ñëpp a ngi biir Sénélec di liggéey. di liggéey si si lan la ñuy liggéey exactement. ñii ñii ñooy joxe facture ñii ñooy def branchement compteur. Mhm. ñii euh, ñooy def euh, dépannage quand les clients sont euh, am amee panne ñii ñoo nekk dans les centrales électriques nekk tamit aussi dans le réseau. Mhm. donc le plus gros du travail ñoom ñoo koy def te ñoom agent seen bopp xam nañ loolu. ñoom ñëpp ñu ngi biir Senelec ñoom ñëpp ñu ngi biir Senelec def fa ñaata at kenn nanguwu leen embauché. am na ñoo xamante ni def nañ 17 ans. si biir Senelec si biir Senelec am na ñoo xamante def nañ quinze ans. Mhm. ki ci gën a ndaw ci amical bi cinq ans la def cinq la def te ñun euh, boo xoolee ba xool société d'intérim yi nga xamante ni ñoo nekk biir Sénélec. Mhm. Sénélec da ko def pour désengager wu complètement de son personnel te yoon dafa ne yi nga société d'intérim yooyu noonu. Mhm. ñu ñu ñu ko moom nag mooy cadre Sénélec yi nga xamante ne ni dañoo joxe seen dund Sénélec dem ba jël ñu ñëwaat ci boîte bi directeur général Pape Demba di leen jox ay privilèges. dañoo dem ba retraité. retraité ñëwaat ci biir boîte bi. créer ay GIE groupement d' intérêt économique. Mhm. fekk des personnels sur place di jël ci booy yooyu noonu di exploité léegi du coup dañ lay exploité exploité exploité ba mënatoo ñu jël la teg la ne la. Mhm. mais loolu jaaduwul te tey boo xoolee te bu nañu rassembler. Mhm. Euh, am ñoom une vingtaine de euh, de jeunes boo xam ne dañ leen recruter mais bu ñu la recruter. di liggéey di liggéey yow tu es fa tu es payé en fonction du travail que tu exécutes par jour. Mhm. soo relevé 1000 clients 1000 clients lañ lay soo relevé 10 000 clients 10 000 clients lañ lay mais léegi tarif bi par exemple suñ la waree fay euh, ñoom dañuy waxaat ak Sénégal ne ne euh, chaque personne relevée équivalence bi 350 la mais mhm. la fay 350 de. 125 mhm. lañ lay fay lii des ñoom ñoo ko moom. te yow doo liggéey président GIE du liggéey këram lay donc en général bu fekkee chèque bi ñëw na nekk chèque de dix millions. Mhm. deux millions lay jël séddale ko éléments yi tëdd ci ñaata ay sept millions. Mhm. de ce fait ñoom ñooy tabax seen i kër ñoom ñooy am seen oto jeunes yi di gën a dee. di gën a di gën a galérer donc ñun vraiment loolu lañ dem ba xool te di ci gërëm vraiment Badam Seck. Mhm. parce que Badam Seck mooy suñu mooy mooy suñu conseil numéro un. parce que mun naa ne amicale bi bu demee bu juddu moom moo tax. parce que vraiment moom il a fait 33 ans de service au niveau de la Senelec. Mm-hmm. waaw premier depuis au temps de Samuel Sarr ñoom la Samuel Sarr embauché woon jamono boobu noonu. Mm-hmm. waaw donc moom il a été victime tamit aussi d'une injustice parce que moom dafa jógoon di kaas di kaas di kaas bi occasion amul taxawee ñu amul si ñëpp lynché ko parce que dañu ne mooy kaaskat bi. Mm-hmm. léegi tey nag moom mu daal di taxaw ne buggatul gis benn doomu adama di subir vraiment yenn injustice au niveau de la Senelec ku muy gis muy dund. Mhm. dina leen organiser benn structure nekk benn mbooloo xeex li nga ci ne vraiment mooy régularisation. Euh, te tamit nee nañ am na prestataire yoo xam ne pour ñu jot seeni salaire problème la. mais keroog wax naa ko nee naa leen. Mhm. au niveau de Kaolack fi ma dëkk man. Mhm. sept mois toog nañ ko te kenn jotul salaire. sept mois sept mois boo demee Parcelles Assainies toog nañ un an dans toutes les localités surtout comme ça. donc man je ne concevoir benn société même à Dakar tamit même à Dakar c'est la même chose. dañuy toog ay ay weer duñ ay weer yi yàlla duñ leen fay seen xaalis. ak ban explication la ñuy joxe. mais naan non parce que explication bi c'est simple quand benn nit bu jógee pour créer GIE GIE balaa lii moo lay won ne Sénélec des fois dañuy xaw a cuune. Mhm. parce que man ma jékki saa ñëw oo la ne la créer GIE mais GIE balaa nga créer war nañ mën a xool sa compte bancaire ñaata moo fa nekk. Mhm. war nañ mën a xool ndax yow. ouvrier yi ngay jël pour liggéey ak ñoom ndax di nga leen mën a fay à temps mais Senelec càmbatul loolu yëpp Senelec daal créé na GIE rek jox ko nit cadre bi ñëw ñu jox ko privilège mu créé GIE am avec quatre-vingt-dix mille francs GIE complet mhm. recruté ay nit Senelec agréé ko rek jox ko marché mais est-ce que càmb nañ kooku la moo nekk ci compte bancaire pour ndax dina mën a fay euh, ouvrier mi léegi kooku noonu président bi mhm. il faut que mu xaar Senelec fay ko moom mu ak xaalis bi dugg yëpp Senelec Timothée nga a wax yéen da ngeen di leen fay mais ak courant ni mu chéré Senelec chaque année day def ay bénéfices yu extraordinaire mhm. te je te dis peu de chefs mhm. ngay gis bon résultat yi baax chef d'agence bi o oh, vraiment les prestataires si bureau am yeneen ngàcc mais am na ñoo xamante ni duñ ko def te liggéey dafa ànd ak motivation ki ngay liggéeyal vraiment dañ ko war di motiver à la matière di ko war di jeunesse dafa dafa laaj daal vraiment ñu ñu accompagner ko. Mhm. nekk ak moom. Mhm. léegi imagine toi yow koo xamante ne nii. Mhm. jël nga ay yow déjà yow yow mi war a fay yaa gën a pauvre ñooñu. du mun a dem. maanaam problème bi loolu la. du a dem est-ce que yéen situation bi interpellé ngeen si euh, njiitu réew mi. njiitu réew mi moo la moo moo fu mu moo lay passer concerné parce que tey jii ki nekk seen rek muy Pamba Demba bi tey wax naa ko nee moom bu fekkente ne. dem na ba am na certain moment Senelec di si boppam mais na bàyyi. loolu maanaam mënul daal yéen jàpp ngeen Pape Demba Bitèye mënul dañ ko war yëpp du ko def. Mhm. su mënoon conseil d'administration du la may deux cent dix éléments nga jël ko caxat caxatee ko sànni ko fu kenn te doomu adama nekk ci boîte bi di liggéey c'est que Sénégal dañ bàyyi naxante. maanaam da ngeen a bëgg Macky Sall changer Pape Demba Bitèye. ñun loolu ñu bëgg ñun. loolu ngeen bëgg. loolu lañ bëgg wala mu jox ordre <laughs> mu doxal li te xam naa ne bu ñu xoolee du ci waxtaan bi parce que xam nga defoon nañ ci marche. Mhm. mais marche boobu noonu vraiment après euh, def na décret. Mhm. parce que démb démb euh, le ministre de l' énergie vraiment nous a mhm. dem nañ fa toog ak moom. moom wax dëgg fa yàlla moom bon d' après lim ñu wax et c' engagé mais ñun boo ñu ooyee parce que nous sommes des Sénégalais avant tout. kilifa bu ñu ooyee am nañu respect ñu wuyu ko. woo nañu ñu toog autour d'une table bon apaiser na kii bi nee nañ nañ jéem a def nànk apaiser climat bi bon moom essayé engagé ne après d'ici mercredi dinañ def euh, benn comité boo xamante ni parce que Sénélec nee ne ñun amuñu benn lien juridique qui nous lie avec la Sénélec. Mhm. te ñun on a plein de preuves. démb sax ñoom jox nañ leen ko. Mhm. ay ay de preuves loo xamante ni moo lay wan ne ñun parce que GIE Sénélec pour te mhm. dire. GIE xam kañ la ñëw en ki def 17 ans xam nga kon mhm. kon kooku am na ordre service signé par la Sénélec am nay DEP am na leneen ak leneen am na ñoo xam ne ay certificat de travail signé par la Sénélec surtout tout ça c' est des preuves ce qui veut dire que y' quelque chose qui nous lie avec la Sénélec donc nag preuve yooyu noonu yëpp bi ñu ko joxee benn rek nañ ko si joxagum. Mhm. te lépp mooy avec le secrétaire administratif. Mhm. te bañ nañ ko dem ba ñuy dem mais ministre bi dem na ba ci biir xam na ne Senelec dañuy caaxaan la ñuy def nii du dëgg du yoon ñun nag jox nañ ko délai léegi jox nañ ko délai bu gàtt ne nañ ko ñun amuñ jot toog di xaar parce que seen président ci boppam dafa ne first track la ñu waroon liggéey ci cinq ah, minutes mais boobu ba léegi yéen a ngi xaar de. Hmm. waaw nañ ko li ñu waroon liggéey ci cinq minutes nañ ko liggéey ci deux secondes hmm. non boobu léegi ñu ngi xaar mais xaar bi am na solo mais xaar bi tamit aussi permettre nañu euh, ñu reculer pour mieux sauter hmm. parce que am fu ñu jógee Euh, comme euh, pour kii bi euh, non dañ ko jox d'ici mercredi. Mhm. moom ci boobam na wax na d'ici mercredi dinañ former benn comité ñun suñu di dinañ former commission ñun suñu biir ñoom tamit dinañ former commission ministère de l'énergie waa Sénélec ñëw ñu càmbat dossiers yi. Mhm. subitement ñu procéder au recrutement. Mhm. te actuellement on lui a même dit que actuellement ñu ngi naan dañuy trouver solution mais Pamba Demba bi tey mu ngi continuer di jël ay mbokkam. mu arrêté ñu régler problème ay Pape Demba Bitèye mi ngi jël ay mbokkam lan moo koy prouver. waaw c'est-à-dire xam nga Pape Demba Bitèye ñi muy recruter waaw parce que da leen di recruter parce euh, si parti bi la ñu bokk régime présidentiel ainsi de suite si am. mais Pape Demba soo ko invité woon fii tey. Mhm. nga laaj ko ndax mouvement crème de ndax jëlu ci quatre personnes de lu ko weddi. quatre personnes. te lu ëpp mais ñooñu tamit ay sénégalais lañ comme ñëpp. déedéet bu loxee noonu ah. mais nu mu nu ay sénégalais lañ. d'accord waaw yéen yéen seen ñun ñëpp nationalité sénégalaise lañ yor. mais problème bi moo nekk ne saa waay. waaw nit ki l'homme qu'il faut à la place qu'il faut mooy dox réew. maanaam. ku xamante ni musul liggéey Senelec. Mhm. nga jël ko teg ko Senelec kooku tardel bërëb bi la. dañoo wax ah, dëgg duñ leen jox seen chance ñoom tamit. nañ leen comme que yéen dañ leen jox seen chance. Hmm. Euh, bi te yooyu. te du ay Sénégalais ñëpp. waaw ngeen am pour dugg Sénélec peut-être moo ñoom tam war nañ leen jox chance boobu. Mm-hmm. nga ne jël nañ ko parce que kii APR la bokk wala euh, Benno Bokk Yaakaar la bokk. mais ñoom ñëpp ay Sénégalais lañ. mi mm-hmm. yéen si seen kuréel gi amical bi amul ñoo xamante ni fii lañ far euh, parti au pouvoir am ñoo xamante ni ñu ngi far si opposition. amical bii nii waaw ci amical bi. amical bi ñu ci nekk si biir politique non non non na leer. 499 amul de hmm. mais nous sommes apolitique. ñeen ñëpp mën nga certifier ni 499. Hmm. loolu je peux le jurer kenn kenn politique wu ci. je peux le hmm. waaw maanaam kuréel bu fekkente ne am na ñu koy def dégg nga si gën la bu fekkente ne am na ñu koy def ci suuf. fësaluñ ko. mais ñun amicale bi amicale de travail de l'électricité ñun ce qui nous concerne ñun nous sommes apolitiques. mais la ma lay wax moo nekk ne. Mm-hmm. mbokk Pape Mademba bi tey yooyu noonu amuñu diplôme boo xamante ni ça prouve. ay électricité ñaata ñaata mbokk la fa dugal yow. non mais mënuñu ko xayma. mais yéen da ngeen def ay. accusations la déglu ma comme ça sans preuve. non si ay mbokkam. si mais suñu la laajee ñaata ci ay mbokkam mais du ngeen ko wax. non ma ne waaw euh, ñaata mbokk Pape Demba bi tey ñoo nekk. mais il faudra demander Pape Demba bi tey. non non yéen ñi ko qui est le frère de Insa Diouf. yéen ñi ko accusé la ñuy laaj. laaj ko qui est le frère de Insa Diouf. Insa Diouf c'est un de ses militants. non non ma xam lan laa bëgg. waaw xam nga yow da nga ne Pape Demba bi tey. waaw dañ ko jox opportunité mu recruter deux cent dix. deux cent dix personnes waaw. mu waroon a recruter kon yéen si prestataires yi embauché leen. waaw nga ne ay mbokkam la jël waaw ak ñoo xamante ni. peut-être ci wàllum politique mo euh, côté am lañ fare. waaw ma ne la Pape Mademba bi tey. Mhm. ñaata mbokkam la dugal biir sene Sénélec. yow mi ko accusé tey lay laaj merci beaucoup parce que Pape Mademba bi tey moom dañ ñu ko de. waaw yéen a ko. accusé non da nga ko. ah collègue apporter ay preuves. ko benn yoon ñaata mbokkam. Pape Mademba bi 210 personnes yëpp ay mbokkam lañ. 210 yëpp ay. ay mbokkam lañ. si naka. 210 personnes yëpp. ay mbokk Pape Mademba bi tey lañ te li war a mën a mbokk xam nga direction générale dafay yaatu. Mhm. te ku ci nekk ci ñoom. Mhm. danga am say protégé. ku ci nekk ci ñoom danga am say protégé donc imagine toi kii bu ñëwee dégg na fa dem indi doom kii jógee fee indi doom pendant temps passé syndicaliste ñu ko doon kaas. Mhm. ne am na recrutement boo xamante ni ñu ngi koy def boo xoolee seen fichier bi nee naa Kaolack nee naa Kaolack nee naa Kaolack nee naa dégg nga ko yow. ñoom jox nañ ci seen i preuve te ki nga xamante ni moom mooy yor visite contre visite Sénélec moo ko wan. donc pour dire que Timothy weddiwuma li ngay wax mhm. damaa bëgg li ngay wax nga mhm. prouver ko mu prouver la ko comment nga prouver que deux cent dix personnes yooyu ngay wax ni mhm. Pape Mademba bi tey recruter na ko voilà léegi ñëpp ay mbokkam la léegi lu ñu prouver waaw lu ñuy prouver pour prouver ko parce que loolu c'est waaw dëgg ma sigal léegi waaw dëgg ma sigal ñun lu ñuy wax lu nekk dañ koy maîtriser waaw yow mënuñu waaxu mënuñu waaxu ba ñu wax loo xamante ni du dëgg ah mais lépp doo ma sigal la ma du ñuy tricher lépp lu ñuy wax lu ne su nekkul dëgg rek leneen moo ci tegu. Mhm. looloo waral ñu former commission bu si mercredi. Mhm. su la neexee nga invité waat ñu. Mhm. ñu indi la suñu preuve. man ay liste sax laa bëggoon nga tegal ma fii. voilà léegi voilà léegi nga ne ko Pape Demba bi 210 personnes yii la recruté. merci beaucoup léegi nii la tudd nii la sant. lii la bokk ak Pape Demba bi. waaw da nga ma sigal la da nga ma la rek. ñun on est de Kaolack. waaw am na ñoo xamante ni jël leen foofu. ak Kaolack ak Kaolack. te wax naa wax dëgg fa yàlla ruus naa tudd seen tur ndax sumay xarit nañ. Mhm. te ma xam leen du baax. te ay mbokkam lañ. ay mbokkam lañ ay militant am nañ ay rakk militant am. ay militant am ay rakk militant. ay rakk militant am. ñu bokk waaw ñu bokk ñu bokk APR ñu bokk mouvement crème de Kaolack. Mhm. te ñooñu wax dëgg fa yàlla ruus naa taxaw ci rajo di tudd seen tur su ko defee sama relation man ak ñoom. mun na wàññeeku da ngeen di xeex Timothée. waaw léegi non non non non yéen da ngeen ne Pape Demba Bitèye lii la. voilà donc demandez à Pape Demba Bitèye. maanaam déglu ma c'est le droit à l'information amul dama ruus kii ak kii. non déglu ma waaw non damay déglu. waaw Insa Diouf. waaw c'est un militant du DG de la Sénélec. Mhm. son frère jël na ko embauché na ko te kooku. embauché embauché na ko bokk yéen li ngeen di laaj moom am na ko. Serigne Saliou Badiane. Mhm. fa lañ ko jaarale lien même pas un an mu jël ko embauché ko. lu mu bokk ak Pape Demba. militant am la. Kuna fa la nekkoon Sonacos bi Pape Demba bi day démissionné bi Pape bi day faloo euh, directeur général mu démissionné Sonacos ñëw dugg Senelec ñu embauché ko. ak leneen ak leneen. nga gis seen kayit ñu embauché leen. waay ay. ñu ngi Kaolack mais ñu ngi Kaolack ñu ngi Kaolack. Mhm. ñu ngi Kaolack. bu ñu demee léegi Kaolack. maa yow léegi yéen seen proche euh, prochaine conférence de presse. Mhm. dangeen ngeen indi list bi. merci ngeen jox ko journaliste yi. merci beaucoup pour ngeen prouver que Pape bi tey. Mhm. dafa recruter deux cent dix mbokkam. au lieu que ñu privilégié. quatre cent quatre vingt dix neuf. yoo xam ne. waaw euh, jàpp cinq ans ba dix sept ans yéen a ngi ko def biir Sénélec. xam nga loolu injustice la. mais ma ne pour ngeen prouver loolu. Mhm. faaw ngeen indi list bi. def mhm. ci tur yeeg sant yi ak luy prouver que ñooñu dañ leen a embauché ba ñu yor seen i kayit. gis nga ñun dañoo nekk système bi di liggéey. xam nga yow dafa mel ni gëmoo ba léegi la ma lay wax tant que indiwuñu la preuve doo gëm. Mhm. mais preuve bi xam nga xam nga preuve bi na lay demee. waaw dañuy organiser conférence de presse ak Kaolack. Mhm. wala nga ñëw ba Sénélec yow sa bopp. Mhm. ma wala la jëmm yi. Dakar boo ñëwee dakaar dinaa la boole suñu coordonnateur bu nekk Dakar bu tudd musaa Niang. dina la woon jëmm yi fi ne. ak leneen ak leneen lu doy waar laa lay wax nii. gis nga bu fekkonte ne dañ doon jël ci prestataires yi. kon képp euh, problème bi mu am c' est parce que dañu jël ci prestataires yi moo tax problème am merci beaucoup léegi nag yow prestataire boo jógee di kaas xam la lay wax tu n'as aucun lien juridique te lie avec la Sénélec loolu la ñu wax te pourtant sa mbokk bi nga doon embauché yow est ce que ndax kii am na lien juridique avec la Sénélec euh, Serigne Sall bi nga embauché est ce que xool nañ ndax am na lien juridique avec la Sénélec xam xam nga mhm. fan la Lian. Lian. Mm-hmm. Lian c'est une entreprise boo xamante ni intermédiaire la ak Senelec. Mm-hmm. léegi dañuy jël ay seen i seen i mbokk. day def sous léegi dañuy jël seen i mbokk dugal mm-hmm. foofu. dañuy jël saa rek pas ma dem bi dee daal daal di jóg ne ah bon pour cette année je vais régulariser les éléments de Lian dugal na ci ay nitam. léegi régularisation xam nga ni muy demee du fa jël ñu fa yàgg de ñu yàgg foofu ci Lian du leen jël de. mbokkam ñu fa jot a dugal lay jël totaliser leen dix dugal. dugal kon léegi looloo tax ngeen bëgg ñu tëbbal Pape Demba bi tey du tëbal du tëbal Pape Demba Bissé kese. ba pare tas société intérimaire yi mu jeex Sénégal parce que di nga société intérimaire yi tant ñu ngi liggéey avec les entreprises. Mhm. Sénégal day mus dellu ginnaaw problème rek ku ma am. tey boo xoolee au niveau ay Sonatel. Mhm. loolu ma fa am. Senelec bëri foofu la nekk tey xoolal société fa société mhm. mais ci gardien dañ ko xamee woon. mais dafa dem ba ci biir laal ci entreprise yi mu dem ba en certain moment encombré te pourtant ka ngay liggéeyloo nit la comme yow nekk Sénégal comme yow nekk père de famille wala soutien de famille wala nekk mère de famille sa waay nga koy liggéeyloo ay fi nii non non ba Sénégal moom kuñ fal la ñuy bu buñ falee DG ñu xeex ko buñ ñu xeex ko est-ce que jógoo leen rek pour daane Pape Mademba Biteye merci beaucoup léegi loolu foog ñuy leeral ko mhm. parce que ñun amicale bi avant que Pamba Demba bi tey di ñëw fii Sénélec dafa exister dañ ko structuré ñun benn affaire rek la ñuy xeex. Mhm. moo nekk vraiment suñu droit. Mhm. le droit d' embauche. muy à chaque année bu conseil d' administration waxee embauche ñu jël ci prestataires yi ñun loolu la ñuy kaas mais kaasuñu fi pour Massamba jóge fi parce que ñun nekkuñu kiy jëlee fi nit. président de la république moo fi jëlee ni tey ay directeur général décret moo leen nommé. ah mais nee nga léegi. li ngeen bëgg Pape ba def ko kon dañ ko fee war a jëlee yéen a ngi interpellé Macky Sall mu jëlee. voilà mais waaw merci beaucoup parce que li ngeen bëgg defu ko. mais defu ko. waaw su ko fekkente ne moom mënu ko def. kon kay yéen a ngi koy xeex su fekkente ne moom mënu ko def. na fi jógee keneen dara ñëw régler situation bi point bar loolu duñ ci dellu un jota su fekkee mënu ko def démb wax nañ ko avec le ministère de l' énergie su fekkente ne Pape Mademba bi tey ne plus assumer ses responsabilités il n'a qu'à dégager keneen daal ñëw respecter boîte bi respecter prestataire yi ñu doxal. mais tey boo xoolee ma jox la exemple. waaw mm-hmm. mm-hmm. Pape Dieng. moo ñëw moo nekkoon directeur général fii avant Matar Cissé. Mm-hmm. Pape Dieng genre pratique yi la doon def au niveau de la Sénélec boobu UTS moo fi nekkoon union des travailleurs de l' électricité léegi ñooñu noonu di xeex seen ak ak seen yële fu ñu embauché vous n'avez aucun lien juridique avec la Sénélec ñu topp ko Sénélec topp Sénélec Pape Pape Dieng ne mukk du def loolu. Mhm. fan la mujjee. dañ ko wàccee indi Matar indi Matar. du noonu. Mhm. Matar daal di ñëw lu mu def. il a régularisé tous ces quatre cent quatre vingt treize personnes. amical bi ñëw na fekk nañ ci Pape Demba. Mhm. <laughs> Ah, mais Pape Demba bu fekkee ne day dëgër bopp bañ a def li bëgg. dañ koy def comme Pape Dieng merci beaucoup mu ngi noonu. léegi léegi parce que Sénégal lañu wax dëgg kuy hmm. doxal nañ xam xamuñu kuy yéexal. waaw est-ce que yow jàpp nga ni. li hmm. ngeen di demander c'est faisable est-ce jàpp nga ni c'est possible ñu embaucher 499 prestataires yi est-ce que yow jàpp nga ni c'est faisable. xam nga li nga Sénégal. chaque année dina am nombre boo xam xamante da koy recruter. ñu hmm. naan la 2020 rek quota bi 210 la woon ci 210 yooyu noonu suñ ko joxoon prestataires yi 2021. day jeex dafay jeex. maanaam chaque année ñu ñu am. ñu jël cent deux cent personnes merci beaucoup. ñu nga si kon heure bi fekk na jeex. ñu nga si nga xoolal Sénégal dafa war a jël toutes ses responsabilités éclater bépp GIE boo xamante ne nii amoo moyen pour fay say ouvrier te yoon dafa ne GIE soo demee en certain moment président GIE bi amatul doole fay ay ouvrier am foofu dans ce cas là Sénégal moo war a dissoudre GIE boobu noonu daal di jël travail yi nekkoon ci GIE boobu noonu jël leen en compte loolu du ñu ñoo ko inventé loolu la ñu war a doxalee bëri bi foog Sénégal jël seen responsabilité mais léegi. société yu bëri léegi comme salaire salaire du Sine Saloum loolu moo ko dal. Mm-hmm. salaire du Sine Saloum ba travailleurs yi commencé demander seen congé tubaab bi dafa ah ñii de ñu xam. Mm-hmm. ñii nag ñu ngi bëgg a xam ci lañ financé benn nit mu créé GIE mu jël travailleurs yëpp reversé foofu. Mm-hmm. léegi soo waxee ñu ne non non ñun suñu yoon newu ci de yow ci GIE bi nga war a waxal. moom moo war a waxal est ce que est ce que loolu yoon la dégage seen est ce ñu nga xeex xeex ñu dissoudre e yi ah Senelec mën a jël ses responsabilités xeex tamit aussi ngir cadre Senelec yi nga xam ne dañu retraité mm-hmm. laqatu ci entreprise yi te kenn xamul di fekk ay salaire de huit cent mille francs six cent mille boo xoolee prestataire yi mu ngi fayeeku un salaire de cent mille cinquante mille présentation de facture am na ñoo xam ne dañu koy fay ay trente cinq mille loolu dafa doy waar te xoolal mun nga relever nga toog sept mois sept mois ah mm-hmm. kenn du la fay kenn du la fay mais léegi da ngay jékki saa rek ñun la ah tey de benn chèque ñëw na mm-hmm. benn check fekk toog nga 7 mois laaloo toog nga 7 mois. Ah. ñu ne la benn chèque ñëw na. benn chèque boo ko xaymaa tey calculer ko ak tarif tarif bi nga xamante yow moom la ñu defee en tant que prestataire bi nga xam ne moom nga jot a relevé wala moom nga jot a coupé moom nga jot a euh, présenté mais boo ko kekk du mot a wala 50 000 lay yem léegi 50 000 francs boobu noonu yow fekkee nga 7 mois waa mais kuy dund nag ah boo amul xaalis nooy dundee. mais boobu léegi ngeen di seetaan léegi yéen fan ngeen fas yéene dem ak xeex bi yéen a ngi amal conférence de presse keroog def ngeen euh, marche. Mhm. Euh, dénoncer mbir mi plan d'action bi euh, lan ngeen fas yéene. voilà léegi exactement ba Pape Demba bi tey def li ngeen bëgg. Mhm. léegi xam nga. Mhm. keroog bi may toog fële. siège Y'en a marre maa ngi si profité ci occasion di remercier Y'en a marre. dañ leen jàppale. mais bien sûr bien sûr parce que xam ñoom ils ont vite compris notre situation ñu xam ne ñii ay sénégalais nañ dañ leen war a mun a jàppale ngir la ñuy xeex ñu am ko. Mhm. donc mais après finalement bi ñu toogee euh, ak Y'en a marre am na lu bëri loo xam ne expliqué nañ ko xeex bi nag keroog wax naa ko fa ne woon naa ne dañuy def marche que si ñoom kenn gëmu ko ci woon. Mhm. kenn gëmu ci woon ma ne leen nag préfet su ko signé ak su ko signé wul dañuy def suñu marche yàlla bi nga xamante ni dara taw ko dimbali na ñuy def suñu marche pacifiquement est-ce que du waa a marre moo tax ngeen am déedéet ñun on s'est déjà engagé Y'en a marre tey xam nga année bi la ñëw. Mhm. mais ñun depuis 2017 ñu ngi existé. yéen a ngi kii te vraiment lu ñoom sax seen bopp dañoo félicité loolu. Mhm. ñoom dañoo ne ñoom dañu ñëw rek mais ñun dañu fekk ci xeex ànd ak ñun ci xeex bi rek mais ñun depuis 2017 ñu ngi xeex léegi nag bon def nañ ci du marche pacifiquement Sénégal yëpp kontaan comprendre nga. Mhm. tojuñu yàquñu te ñu ko yàlla. duñu toj du yàq te te lancé ngeen seen. te lancé nañ suñu message te message bi vraiment bi mu bi mu jógee ñi war a woote woote nañ. ministre du tutelle muy ministre de l'énergie Sophie Gladima bi woo ñu dem building waxtaan ak ñun jox nañ ko neen nee na après dinañ waxtaan xool commission bu ñuy teg. mais à chaque fois nag noonu lañ def. di leen nax rek nag non ñun kenn mënuñoo nax da ngeen di dalal ba ngeen dal. ñu bàyyi non nax xam nga tax kenn mënuñoo ñoo mais nax. dem nañ fa ministre waaw non da nga may déglu dem nañ fa toog ak moom. mais on a été bien clair avec elle wax nañ ko nag jox nañ ko délai bu gàtt parce que ñun toogatuñ fi di xaar ay ay ay mois wala deux mois déedéet donc lu ñu xaar dañu suñu plan ñun suñu plan d' action dañ koy suivre suñu plan d' action dañ koy suivre jox nañ ko nag d'ici mercredi d' ailleurs samay profité ci occasion di wax ne jeudi am nañ conférence de presse te xam naa ne après invitation bi Babacar Sow dina ko envoyé ngeen indaale liste ñi Pape Mademba bi tey. yow liste woowu soxal na la nag <laughs> liste woowu soxal na la trop bokk Pape Mademba bi tey 210. su ma la ko joxee moom dina doy waar trop ko. waaw xam nga pour ah, non pour dire mhm. xam nga loo xam nga wax naa ko keroog président conseil d' administration. Mhm. su dee ba taxaw naan man su ma newoon directeur général. dinaa jël chaque année deux cent dix personnes ci sama gox ndax. directeur général bi nekk fii actuellement Pape Mademba Biteye mhm. chaque année mu ngi jël trois cent personnes ci mu jege ñaaleem PCA Sénégal moo ko wax mhm. live and direct ñëpp di dégg fan la mujjee conseiller kii bi nu tuddi euh, maire de Géoul adjoint maire bi mhm. ñu jël ko nommé ko au rang des loolu loolu moom ci lan la bokk ci lan la bokk adjoint maire de Géoul nga jël ko fal ko au rang des yi gis ko di di di di tepp teppal. Mhm. Pape Mademba Bitèye naka la nekkee euh, chef le PCA de la Sénélec. Mhm. dégg ko muy muy muy wax certains propos te moom jéemu ci wax dara man su fekkoon ne ma ndox toog à sa place. Mhm. Euh, président conseil d'administration woonu ma ko woo demande ko explication ba rek dàqu ko. parce que da ngaa jàpp ne kooku la Sénégal Sénégal soxlawuñu loolu. loolu te nañu wax dëgg di nga lu ñuy def nii mooy taal dëkk. mooy mooy démembrement day ñëglu jeunes yi. lii mooy ñëglu ay personnes te te gis nga ne 499 yooyu koy def li gën a métti. mais li gën mhm. bi nga xamante ni il est permanent bi ci boppam permanent mhm. dëgg fa yàlla soo demee nga laaj ko sax. Mhm. moom dara koy wax. booy neexul ba neexul mais liggéey bi yéen a ko yor yaa ngi coupé temps yi Covid bi Covid 19 bi non mais prestataires yi ñoon exposé woon. te pourtant boobu agent bi dañ ko jël dañ ko ne bon. da nga dem congé. Mhm. ba affaire xaw a apaisé wu. mbaa yow si coupékat yi nga bokk. <laughs> moom releveur la <laughs> moom releveur la léegi xoolal. Mhm. gars yi ñoo doon relevé. Mhm. agent yi ngi tëdd seen kër yi prestataire ni exposé ñu ngi relevé ñoo def lépp te pourtant ñu ngi nekkoon ci feebar en plein période de pandémie yàlla rek moo ñu sutural. yàlla dimbali ñu ba vraiment dara daluñu ba ci ah yàlla mun na la dara dal sax mais yàlla da lay dimbale ba du feeñ ci sa yaram te doo wàll kenn. mais boobu temps agent yi ñu ngi nekkoon seen kër chaque fin du mois ñu doon récupérer seen salaire. yéen ngeen nekk sur le te ci plan ñoom seen salaire bu bu xool bu tardé benn jour sax nga gis seen kanam yi ni muy commencé soppeekoo. Mhm. léegi dans yéen ngeen ay 7 mois. fin du tabaski bu jotee wala ay fet daal di jot fête événement yu mag yi <laughs> ngay toog Senelec. Mhm. non da ngay jéppi sax sa bopp. am na booy bëri yoo xamante ne xam nga ñenn ñoo leen di may xaalis. Mhm. mooy parce que terrain bi dafa am ay nit yoo xamante ne dañoo xamante ak ñoom ci terrain bi ñu nekk ay nit ñu baax. Mm-hmm. ñooñu ñoo lay jàppale sax financièrement pour rek nga am loo suturloo. parce que dem nañ ma enseignement dañoo xam situation bi. Mm-hmm. Senelec nekk na boîte boo xamante boo fay liggéey. ñëpp mm-hmm. yaakaar nañu tu es à mais tel n'est pas le cas yi yeewu ci loolu xam loolu. parce que lu ñuy bañ mooy suba nga am jabar mu jàppale benn affaire ignoré ko te xamu ko. te ñun li ñuy def li ñuy wax nii. dañ koy wax tam aussi pour pour pour leeral mm. aussi réalité yi nga xamante vraiment moom la prestataire yi koo ko wax nag du ko gëm mm-hmm. mais en fait loolu moo am biir Senelec te cadre yi nag ñoo gën a sonal Senelec yow boo liggéey bu retraite doo toog sa kër pour dire am na cadre yoo xam ne xam nga lu ñuy def mm-hmm. ñëw nañ sax di xëccoo ay marché élégage élégage mm-hmm. pour gor garab jënd seen jaasi ñëw recruter seen nit pour gor garab am am am xaalis. <laughs> mais est ce que est ce que loolu est loolu loolu mm-hmm, mais léegi mm-hmm. dans ci loolu noonu yëpp directeur général bi toog di xa di xool loolu genre pratique yooyu kon ça veut dire que ñoom ñëpp a léegi ngeen ne da ngeen di def grève de la faim yéen tamit Timothy weeru koor gii ngeen ne da di def grève de la faim. non mais grève de la faim loolu ngeen wax waaw. non grève de la ba koor gi jeex waaw. dañoo ne programme bi ñun plan d' action. lañ teg Babacar mi ngi ree sax. <laughs> non moom <laughs> ah. bi euh, kii bi. kii nañ ko mooy marché bi. Mhm. ñun après dinañ investir le locaux de la direction générale muy sitting bi. Mhm. dinañ ko def. sitting bi kañ la. sitting bi actuellement mënuñu jàpp date parce que euh, d'ici mercredi. Mhm. dinañ dem uyu ji la nga xamante ni loolu lañ fay jëlee su fekkee c'est quelque chose de positif qui nous arrange arrange tous les prestataires. ñu bàyyi mu sedd ñu xam ne on a atteint notre objectif. te dañ ko su dee defuñ ko. li ma wax rek on va passer à la vitesse supérieure te foofu noonu du toog lu du ay datu jàpp loolu nii la rek. grève de waaw grève de la faim bi nag. merci beaucoup léegi nag voilà <laughs> foofu na lay gën a méttee. <laughs> xam nga boo ko defee ci ci koor gi nii sax gars yi dañu ne gi koor gi daa jot moo tax gars yi nii. Mhm. mais dañuy bàyyi euh, ba def suñu sitting bi. au mhm. de la direction générale bu ñu ko defee ba pare. Mhm. ci la def def de la faim. mais loolu moom en tant que yéen kuy kuy liggéey Senelec pour yéen lan moo tax courant bi cher. loolu lan moo tax ñu leen di reprocher. exactement yow sax releveur nga. que souvent yi li ngeen di relever ak li ngeen di indi euh, consommateur yi du nekk benn. waaw non cest à xam nga client loolu naka la demee. exactement non des fois des fois erreur de relève dina am. Mhm. mun nga dem jël lu ëpp. Mhm. ñëw indi client benn client bi su doon fay vingt mille. Mhm. ngeen di ko fekk ci cent mille. client bi am na droit ñëw réclamer. bu ñëwee Senelec. léegi dañuy dem xool index ba nga xamante ni mooy daw ci compte bi actuellement mhm. bu fekkente ne dafa xaw am espace ak yow index bi nga relevé mhm. bu fekkee index bi nga relevé moo ëpp index ba fa ne su boobaa nag euh, dañuy defaraat facture bi ah, dañuy defaraat facture bi li ngeen wax ni neex na de mais du demee noonu non si noonu lay demee non ñuy kaas kaas nag waaw Senelec moom tam aussi dafa am ni muy doxee Senelec daf fi nekk pour les sénégalais. waaw sénégalais yi bu ñu amee pante Senelec dañu jëm. courant bi di gën a cher ñu dépendre leen Senelec daf fay nekk pour sénégalais. non Senelec Senelec noom bi bien sûr. Hmm. yow boo naanee ndox mu Senelec kan moo tax du Senelec. mais courant bi di gën a cher la non courant bu cher wala ñàkk cher loolu état bi la. loolu ñoom ñi ne ci état bi. Mhm. loolu da ngay fexe tuuti nga invité Pape Mademba Biré directeur général bi laaj ko si. ne ko nag Pape Mademba la moo xam nga ñu bëri dañuy bëgg les compteurs woyofal au lieu que yeneen compteurs parce que dañ naan yeneen compteurs yi Senelec dafay sàcc consommateurs yi lu baree bare. Mhm. mais dañu gis ni même pour nga accéder ci compteur woyofal yi c'est tout un problème. mooy émergence xam nga mooy ancien compteur yi émergence ci ay am na SKT2 am na leneen ak leneen. Mhm. waaw léegi gars yi indi waaw léegi lan moo tax mu jafe pour am woyofal bi. waaw c'est que problème bi moo ne xam nga ci fan yële paase sax. Mhm. amoon nañ problème tuuti ci compteur yi. waaw problème rupture parce que des fois client dañuy demander compteur yi day tardé ñëw. mais mais yéen compteur woyofal yooyu arrangé wu leen yéen prestataire yi. no non non non. arrangé nañu parce que am na ñoo xamante ni. ñu ngi woon Senelec di liggéey bi compteur Woyofal yi ñëwee. Mhm. si la ñu euh, licencié woon ñu bari amoon na ay licencié de la Senelec. non waaw gis si lañ licencié woon ñu bari merci beaucoup gis nga gis nga gis nga Sénégal. Mhm. Sénégal ñoom dañuy jéem a def loo xamante ne nii. Mhm. mais xamuñu après suba fal lan lay jur. des fois da nga ne non da ngay indi da ngay innover. mais innovation day fekk suñu réew am doole. innovation day fekk boo koy def ndaw ñi am liggéey. Mhm. yow nag mu ne ñëw nga ne léegi da ngay jël da ngay jël par exemple ay contre woyofal léegi boo jëlee contre woyofal tegal ko client bi léegi ki doon relevé nga teg ko ne la. si lañ licencié après léegi loolu après loolu lan lay lan lay mhm. ay chômage taux de chômage. est ce que loolu soxla nañ ko ci réew mi. mais ndaw ñi bu ñu liggéeyul kon léegi lan la. est-ce que kon loolu taxul ñu dem ba si biir ñu commencé joxeetuñ bu baax compteur Woyofal yi waaw bon loolu moom xam naa ne tamit aussi mun na cee bokk. Mhm. mais yéen yéen tamit yéen normalement. mais même contre Woyofal arrangé wu mhm. mhm. su amee xam nga la mooy am foofu su boobaa. contrôle. ban genre contrôle. contrôle pour éviter les fraudes mais contre Woyofal day paam. day demander code dañuy war a am assez de yoo xamante ni chaque jour bu ñuy yeewoo dañuy contrôler Woyofal yi. am na ñuy frauder ak contre Woyofal mais bien sûr am di sàcc courant. di sàcc courant te lu ci ëpp laa expliqué nii. Mhm. prestataires yi lu bëree bëri ñoo koy jàpp. ñoo koy jàpp liggéey bi yëpp encore bi taal oto ñëw taxaw ko def constat bi ñu la après yow xam nga bu ñu la facturer. Mhm. selon ci facture bi nga xamante ne moom la ñu facturer client bi. Mhm. yow ci loolu lañ lay fay. mais loolu balaa ngay see jot tamit aussi. da nga daw ba dee non da nga daw ba dee. c'est <laughs> ça doit parler encore yow naka gisee kuréel gi di haut conseil du dialogue social nga xam ne daf fi nekkal. Euh, liggéeykat yi nekk ci diggante liggéeykat yi ak état wu Sénégal est-ce que jàppale na leen si si xeex bi. waaw c'est que xam nga ñun moom. Mhm. la ñu yàgg wax affaire moom balaa nga ne naam dañ fay ne. Mhm. ñun dañ fay xas ba nekk. waaw ñun dañ fay xas ba nekk ku ñu jàppale ak ku ñu jàppalewul ñun en tout cas ñun dañoo pare pour suñu avenir. lu mel ni au conseil du dialogue social dégg leen seeni i jafe-jafe ngeen def ay marche si de suite daf leen normalement a. dara mais ma ne la est ce que dara na déglu est ce que yéen sollicité ngeen ko. non sollicité wul sax. Mhm. mais si nga nit comme euh, comme comme comme ministre de énergie. Mhm. bi mu déggee coow li mais yow coow li ba mu amee nga yaakaar ne kan moo waroon woote normalement Pamba Demba Bitèye bu fekkonte ne jox nañu cër avec tout le respect bi nga xamante joxoon nañ ko ko mais pourtant waroon nañu mën a woo c' est moom moo nekk employeur bi. Mhm. ñu toog trouver un terrain d'entente ñu rek ñu accompagner ko. jeunesse dafa soxla la mu bëgg di ko jooytu nga jëm ko trouver solution. Mm-hmm. mais jeunesse buy wax ay jeunes di di casse avenir yow nga taxaw di di contrer wala nga leen di xooqatal loolu mooy devant seulement jeunes yi dañuy fippu. Mm-hmm. bu ñu fippoo rek réew mi nekkaat ci beneen facette. yooyu foog gars yi di koy éviter. Mm-hmm. waaw loolu laa vraiment tamit bëggoon naa profiter occasion bi di ko lancer. kilifa yi foog ñu jéem a taxaw jeunes yi ndax jeunes yi dañoo sonn dañuy liggéey comme des bénévoles ñu ngi lu am Senelec moo am moo am hydraulique dañuy liggéey yi liggéey du ñu am dara mais loolu c'est pas normal. naka gis temps yi euh, président Macky Sall lu mu organisé woon conseil président sur l' emploi des jeunes. waaw mais ñi fa demoon par rapport ak situation bi ngeen di dund. ngeen gis ñu organiser loolu ci réew mi. waaw mais dégg naa ay financement DER FONGIP ak yeneen ak leneen mais ñun moom euh, amicale de de l' ñu financement ñu xaalis soxlawuñu dara. Mhm. la ñu soxla mooy suñu matricule quatre chiffres. Mhm. ñu jox ñu ko ñu defal ñu ko suñu dënn ah embauché ñu. loolu moo mën a sedd seen xol. kese ñun boo ñu joxoon milliard loolu lijjanti xam nga milliard mu ñu ko jox léegi. nga def mhm. ci trois jours mu jeex. waaw mais ñun matricule lañ soxla ñun Senelec daf ñoo jël initié ñu ci liggéey bi. nit ki nag doo jël nit formé ko ba mu mën liggéey nga xëy benn jour rek naan ko xawma la loolu dafa loolu injustice da te c'est le la république ngir vraiment gën a taxawaat jeunes yi société intermédiaire yi nga xam ne dañoo nekk fii te amuñ doole nañ leen écraser parce que loolu exploitation lay jur ci ci ci ci ci ci Sénégal te loolu baaxul te dafay commencé bëri Senelec boo demee Senelec ay Procalec ay Cosiel ay Lia mhm. ay Fëlëw ay Xule Frère Top Énergie mais ya no mais tey dañ fa fees del del del boo xëyee lëndi Senelec mhm. oto yi ni ñuy taxawee koo si gis booy xam nga des fois booy ndeysaan ñoom dañoo bëgg liggéey bi boo leen gisee ñu ngi armé wu taxaw boo leen nga yaakaar ne ñu ngi dara fekk yoruñ fekk yoruñ dara dañ leen di exploiter rek la ñuy demee tey jii mooy euh, fête du travail mhm. tant que euh, liggéeykat ban appel nga a lancer exactement waaw bon di souhaiter vraiment bonne fête à tous les travailleurs du Sénégal Euh, plus particulièrement à l'amicale des moo nekk les travailleurs de mhm. di leen di di te di wax président de la république que ni que liggéeykat dafa am solo ci ci réew. Mhm. waaw muy mason bi muy électricien bi muy lépp muy bépp ouvrier boo xamante ni vraiment da nga Sénégal di liggéey dañ ko war jox li nga xamante ni mooy gëddam parce que muy ci bible bi muy ci courant euh, courant bi wax nañ ko liggéeykat bi dañ ko odmal liggéeykat bi dañ ko jox salaire am. Mhm. loolu mooy dëgg. tey neex na trop mais suba incha allah kenn du fi nekkati te bés dinañ la laaj tamit aussi la nga yoroon lañ la dénkoon noo ko yoree. xam nga dafa on a l'habitude de dire que ne que mhm. nit ki borom ñaan def ñaanu euh, potundal yàlla jox la sio mhm. kon nga war a xam ne carrément lan la jox noonu nekk pour yow kese war mhm. nga war a bokk jàmm yàlla yi mais doomu adama yi des fois ñaan pot potundal yàlla jox leen sio rek ñu bëgg jël lépp ak yi moom day doy waar te Sénégal ñu ñëpp ko bokk li ñu bëgg rek mooy Sénégal jëm kanam parce que se nous dans nous tey électricien bi ki nekk Sénégal rek suy liggéey di xeex pour ñu embauché ko Sénégal lay desaat xaalis bi ñu fay Sénégal la invité suy tabax kër Sénégal la koy tabaxee suy jënd oto Sénégal la kon xaalis bi fii lay mhm. kon nañ fexe tout la en tout cas président de la république la wax tàmbali ko déjà nan day financer les jeunes nan day jàppale pour ñu am liggéey vraiment na ci gën a taxaw pour amicale de travail de l'électricité bépp prestataire bi nga xamante ni moo nekk ci biir Sénélec est-ce que yow jàpp nga ni fête du travail am na njëriñ fii ci Sénégal cahier waaw cahier de doléance cahier de doléance waaw présenté ko xam nii rek xam mhm. nga premier mai moom xas nañ de c'est la fête de tous les travailleurs mhm. donc seulement ba xool gëdd gu mu war a am amu ko pour yow ban ban touche lañ ko a jox carrément pour ñu mën a euh, jox mhm. delloo leen seen àq ak seen yelleef ba mu mën sëkk. donc c'est pas pour que. waaw de doléance yi moo tax. di nga carte de doléance bi ñu joxe noonu. waaw président bi war ci war na ci mën a sukkandiku pour xam lu gars yi soxla. mais kayit doléance yi damay dégg góor xuma naan euh, <laughs> su ngeen wanee ginnaaw liggéeykat yi su ñuy wanee ginnaaw. si mbalit bi lañ koy dugal. kii def a dénoncer <laughs> a dénoncer xam mhm. république. Mhm. gars yi ne nañ c'est le plus informé mais je dis non. Mhm. des fois lu tax. waaw parce que des fois affaire bi day am làqatu day am làqatu di nga yow tey li am Senelec. Mhm. comme par exemple li am Senelec. Mhm. yow tant que waxul ma ko doo ko mës a xam te pourtant Senelec chaque jour nga dugg fay facture. soo bëggee jënd woyofal da nga fay dugg. mais su ma la waxul réalité bi. fa nga xamante ni moom la a xam. donc demee. compte bi nga xamante ni moo war a dem président bu président jot ci mais malheureusement fi nga xamante ni foofu lay yóbbu. léegi gars yi dañoo jël lépp bu ko politiser temps yéen a ngi gis Pape Demba taxaw pour benn centrale boo xamante ni ay doomu sénégalais. Mm-hmm. ñoom Samuel Sarr ak ñeneen ñoo fu ñorom uti. Mm-hmm. xaalis seen i milliards ñëw daal di proposer l' état du Sénégal benn centrale à gaz te Pape Mademba bi tey mi ngi koy bëgg a politiser. Mm-hmm. bi mu toogee ba léegi imagine yow. di mu toogee ba léegi moom programme président de la république la nekk du suivre Pape Dieng Pape Dieng moo ñu indil M2X mooy contrôle yi Euh, moom au moins am na lu mu def avant moom c' était Samuel Sarr Samuel Sarr moo ñu indi SIC SIC benn système d' information clientèle la moo fi nekkoon. xam mhm. bu njëkk amuloon informatique. Mhm. Samuel Sarr daal di ñëw indi SIC mooy système d' information clientèle Pape Dieng di ñëw innové moom tamit. Mhm. bàyyi fi bàyyi fi empreinte am teg fi M2X. Matar Cissé ñëw. indil ñu woyofal. indil ñu NSIC. nouvelle système d' information clientèle. moom baax na moom. yow mi di defar yow mi di defar pâte de vite. ah non yéen nekk Sénégal ak Pape Demba Biteye. lu mu ah, moo nekk programme président day lay suivre. Mhm. électrification rurale yi mhm. nekkul Pape Demba déedéet nag population bi loolu. Mhm. loolu président la programme président la mais dañ ko fa fal teg ko fa ngir mu indil ñu xam-xam indi mu ñu leneen lu bees. loolu lañ soxla ci moom loolu la ñuy xaar mais nekkul dañ la fal rek ke fal. yow léegi programme bu mu bu mu bu mu waxoon moom ngay suivre ay horizon deux mille c'est pas ça déedéet. ku nekk boo ñëwee ci bërëb da ngay marqué sa empreinte mais léegi xam nga marqué bi lan la mm. mooy say mbokk ngay marqué sa <laughs> boo ñëwee say mbokk ngay jël teg leen fa léegi su ko boo demee say mbokk yooyu noonu mm. ñu ne ah ñi de par dem moo leen fi teg xanaa loolu mais mais de la scène si mm. moom moom suivi la nekk def rek ay woyofal fii woyofal xam nga existé na déjà mm-hmm. ay ay électrification bi yàgg nañ ko dégg rural mm-hmm. ci dans les villages environnants bépp village bu nekk ci réew mi. Mhm. war nga mun a am électricité. moom daal war na indi lu bees ñu ne lii Pape Demba bi tey moo ko fi def bu nekkee DG. mais du lenn loo xamante ni vraiment ñëw nga xeex ak Akilee Akilee dem na tey ji bon ñu ngi dégg ci weewu genn ne mu ngi négocié waat contrat bi ak Akilee. Mhm. bon je sais pas lu mu demee mais en tout cas soo daal ñun jàmb nañ bëgg. Mhm. jàmb ji nag li koy indi ci réew mi moo nekk jeunes yi nañ leen taxaw nañ taxaw prestataires yi nañ dissoudre vraiment GIE yi nga xam ne dafa nekk Sénégal di exploiter jeunes yi. wax ak cadre yi nga xamante ni vraiment dañ jël retraite France boo demee France dañ leen dañ leen tabaxal maison de retraite soo jëlee retraite fa ngay dem toog Sénégal président de la République war na ci xalaat. Mm-hmm. tabax benn ngan benn xas retraité benn kër gu mag. ah pour retraité yi. mais bëgg nga embauché la rek mais non mais retraité xamoon ne retraité yi ñoo sonal réew mi. ah. mais nan yow yow nag mën a liggéey 30 ans de service dans une dans une entreprise. Mm-hmm. amoo dara échec. Mm-hmm. dem ba à un certain moment di bëgg rattraper le temps perdu c'est impossible mënul nekk. ñëwaat jërëjëf loolay waral loolay waral boo créé GIE. Mhm. da ngay exploiter jeunes yi mais doo leen a jox seen àq ak seen yëlëf ndax yow mi war a fay yaa leen gën a sonn. yow boo doon noté Pape Demba bi tey loo koy jox sur 20. <laughs> non Pape bi tey actuellement nii. Mm. sur 20 note non non 4 laa ko jox. 4 sur 20 waaw 4 sur 20 waaw. Timothée ñu bàyyi la nga tàggatoog auditeurs yi waxtu bi dab nañu. waaw bon en tout cas mayoo dara Pape Demba Bitèye. non en tout cas vraiment maa ngi nuyu euh, Sénégalais yi. Mhm. waaw parce que tamit aussi keroog suñu marche pacifique mhm. euh, nu ñu ci taxawoo. Mhm. di remercier aussi tamit mouvement Y en a marre. Euh, parce que ñoom tamit aussi depuis lors ñu ngi amal ay réunion di di di waxaale tamit aussi sénégalais yi ne leen actuellement ministre de mercredi incha allah la ñu wax ñu ngi toog di ko déglu mais jàppale ni jeudi am nañ conférence de presse. ngeen indaale liste génn waaw lépp luy preuve daal dinañ ko indi. ngeen indaale preuve ñoom laaj nañ ñu dèjà. Mm. Euh, preuve bi nga xamante ni mooy wane ne juridiquement am na lu ñu liyee ak Senelec. Mm-hmm. laaj nañ ñu ko yéen am ngeen lu leen liyee Senelec juridiquement. indi nañ lépp am ngeen ay preuve indi nañ lépp teg ko. Mm-hmm. te lépp muy ak euh, le secrétaire administratif. Mm-hmm. waaw léegi en tout cas de toute li ñu bëgg daal mooy nekk xam-xam bi prestataires yi dañ ko bëgg a wane Sénégal. Euh, vraiment pour Sénégal daal bépp client bi nga xam ne dafay ne ah, di jàmbat facture jàmbat facture dootul amati panne di toog ay deux jours ñu bañ la dépanner dootul amati. Mm-hmm. comprendre nga ak leneen ak leneen. jox leen daal seen àq ak yelleef ba mu ba mu ba mu sëkk waaw ñu remercier ko bu baax a baax Timothy euh, Coly nekk euh, coordonnateur bu amicale des travailleurs de la Sénélec ak Babacar Sarr bi nga xamante ni euh, moom la àndal di secrétaire administratif ci googu googule di amicale des travailleurs de la Sénélec ñu leen di remercier bu baax a baax ci seen disponibilité di remercier Mamadou Diaw Diallo bi nekkoon ci technique bi ak yéen suñu auditeurs yi ànd ak ñun chaque samedi de 10 heures ko dégluwaat ci suñu site internet www.rewmi.com wala ci suñu chaîne YouTube Rewmi officiel jaa ngeen jëf ba samedi prochain incha allah.